asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu waat di ziyaara waat di tatagalaat mbokk yi nga xam ne ñoo tax ñu toog fii ndax bu ñu woon ñoom du ñu wax mooy ñu nuy seetaan kii wax moom seetaan ku ko ku ko seetaan lay wër waaye li ñuy wax nag jar na wax dëgg yàlla ñëpp dégg ndax ñëpp ci mën a jariñ ñuy nuyuwaat ñuy seetaan Gueoul euh, Art TV tabaarakallah ah ñu dalalaat nag benn kàngam borom xam-xam tabaarakallah waaye wax na fi mu war a waxee ma ngi wax fi mu war a waxee muy kër maamam di Serigne Omar Seye tabaarakallah ñu naan a dikk nag ci euh, relation bu mag boobu bu rëy boobu nga xam ni boo duggee kër Serigne Aliou ah mënoo xam ba xam ñi sant Seye ñoo moom ñoo ñoom ñoom ñoom ñooy ñoo moom gàmm wala ñi sant Ba. ñoom ñëpp ñoo bokk gàmm léegi-léegi sax da nga fekk ku sant see koo xam ne moo gën a bëgg gàmm ah kon loolu nag ñu koy gis war nañoo xam maanaam jaxasoo liñ naan soow ak cere ak soow boobu nan la demee woon ba tax mu demee nii tabaarakallah te seen ama jërëjëf euh, oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar euh, di kontaan ci yow bu baax a baax euh, ni nga xamante ni si noonu nga ko waxee rek mooy xadara sëñ Alioune Ba képp koo xamante ni dangay ngay xencu leer rek ci nga bokk ndax euh, ba muy wax ca tawassulam ba euh, tawassulam bu siiw boobu euh, di wax naan yaa man yara ma fi damiri mu xaatira mhm. yaa man yajubu bi ma naru mutakarruma nga xam ni tey boo duggee ci kër gi mhm. xale yi nàmp moom la ñuy jigéen ñi sax mokkal nañ ko muy tawassulu Cheikh Cheikh Seydi Alioune ba boobu ma nga dem ba àgg fa min jiiratin muy dem ba yéegal ci boppam comme ni nga ko waxee anga nga naan min jiiratin wa xalaailin wa talaamisin nga xam ne dëkkandoo su la jiital dayee kon kon moom jiitalul sant jiitalul doom mais dëkkandoo yim dëkkal moo tax euh, yàlla def na bi mu ñëwee ngumba euh, waa ngumba ñoo xoo xam nga lii waraf wax naan kaay ma yilif la sëñ ba waa ngumba ñoo ko ni kaay yilif ñu parce que ñoom ñoo ko ni bu ñu amee jumaa yow yay nekk imam xam nga imam biñ fal avant ñuy am terrain imam biñ fal avant ñuy defar jumaa bokkul ak imam bi maa fi indi tibili bu ngeen ma falulee maa fee jiite parce que maa fi indi tibili wala maa fee jiite wala kenn du fi jiite sëñ Aliou ma bokkul ci imam yëpp kon kooku ñi mu àndaloon yëpp dafa àndoon ñoom ci lu Cheikh Seydi Hadji Malick toqatal ci ñoom lu leen nàndal te mooy fexe ba ko àndal nga def ko sa nawle euh, nga def ko sa mbokkum taalibi kon ni nga xamante ni ñoom noonu lañ doon waxante seen biir moo tax bokk na ci ñenn kenn ci ñooñu suñu benn maam boo xam ne moo jur suñu way jur wu góor muy sëriñ moo xawa njugo sëy digganteem ak euh, sëñ Alioune Ba nag dafa am kéemaan yu bari yu ci amoon ah, dama koy faral di wax ndar di wax naan euh, néew bi njëkk a yeb ci oto di ko déplacé dëkk ak dëkk la Cheikh Seydi Hadji Malick waxoon ca Cheikh Omar Fouti ni xam nga waxu maandu nee na Cheikh Omar Fouti moo njëkk a aj ci luñ xam maanaam xëy na am na ku një ku njëkk a xam ni njëkk naa aj Cheikh Omar Fouti waaye daal awalu man xajja fii man araf loolu la Cheikh Seydi Hadji Malick wax ci maandu teel Cheikh Omar Fouti daal la njëkk a xam. ci ci ci ku njëkk a aj keneen ku aj xamuñu mais daal ci histoire ñun lii lañ jot waaye néew bi njëkk a yem ci oto jële ko dëkk ak dëkk Serigne Mor Xawa Ndiouga lañ ci njëkk a xam 1944 la woon sama papa sëñ Abdou Aziz Sey yal na ko yàlla xare àjjana dafay wax ni daan wax naan dafa doon wax bi ñu koy expliqué ne Ndar Bakel benn région la woon booba jamono corona la woon booba jamono peste bu metti mais itamit dafa bokkoon ci article yi nga xamante ni gouverneur général bi nekkoon saint bi parce que gouverneur du Sénégal moo nekkoon daal gouverneur général moo nekkoon Saint-Louis dafa bokkoon ci article yi mu signé woon mooy ku faatu fi nga faatu lañ lay suuf loolu moo doon moo doon moo doon moo doon moo nekkoon ci ci article constitution bi sëñ Mor Awa Ndiouga nag faatu ci bi bi bi interdiction bi amee ñu ni bu kenn déplacé ci jamono ji muy doon ci jamono yooyu ca la faatu bi mu faatoo Ndar mu faatu ñu jël ko yóbbu ko ci benn kër ci Njolofeen toog naa ak doomu sëriñ Birahim Diop mu am man ñu may présenté naan leen kii maamam sëriñ Mor Awa Ndiouga dafa faatu fii ci hôpitalu Ndar ñu jël ko yóbbu ko ci benn kër jamonoy noor teg ko fa kër ga di taw ci biir kër gi ci biir kër gi macha allah maam Rawane Ngom moo ko jëlee foofu dem ci gouverneur général nag jour boobu sama papa dafa wax ni dafa am benn général bu gaañu woon ca France mu coïncider ak bi maam Mor génnee àdduna yàlla dogal maam Rawane ñëw ci gouverneur ni ko seen général bi faatu ca France ñun suñ tarixa bi dafa am benn général bu ci faatu léegi nag dama ko bëgg a jëlee ndar yóbbu ko ba ngumba bi nouvelle bi ak Ngumba man damaa nangoo ci gibiñu maire Soda Ba mhm. bi mu faatoo yàggul bokkoon na ci mag ñi daan ànd ak maam Sëñ Aliou Ba mhm. daroon ko ci ay soxla dafa wax ni Sëñ Aliou Ba bi ñu ko tàggee sëriñ Mor mhm. bi mu koy tàggee moom Sëñ Aliou dafa wax ni Mor de faatu na ca Ndar waaye dañ ma ko indil fii léegi te booba décret bi jàll. booba décret baa ngi léegi ne na mais soxna ci boppam moo wax hmm. maa ngi toog di dégg mu ni. yàlla ko yàlla xare àjjana bi mu ne la yàggul. mu wax ni mais ñun dañ doon wax ni sëñ Alioune Ba xam naa li sañ moor nelaw. Hmm. nekk xaritam mu mayoon ko doomam soxna Awa Sadio xam naa jege yoo googu moo tax sëñ Alioune dafa mel ne dafa xaw a perdre conscience. Hmm. dafay nekkatul moo tax mu naan néew bi lañ ko indi. ndax néew bu ñu yab ci oto di ko indi sëñ Aliou ma moo ne daañu ko indi fii léegi daañu ma ko indil fii léegi Maodo Xaan Ngom nee bi mu defee dugg-dugg ci biir ndar wax ak gouverneur ni ko loolu mënut a nekk. nee nañ Maodo Xaan dafa génn toog ci jardin gouvernance Saint-Louis yàggul dara rek benn ci garde kooru gouverneur yi fekk ko fa ni ko Mara Mara lañ ko doon woowee Mara gouverneur nee na may na la région bi foo bëgg néew dem fa mu dem fa. boobu nag Louga nekkul région région Saint-Louis moo fi nekkoon mi ngi yemoon kel région nekkul nekk kon kon gouverneur am na droit joxe dëkk décret ni région bi foo bëgg néew dem fa mu def ca la ko maam Rawxaan ci gàttal jël li jën ci oto jag ko ci jumaa jumaa jooju nekk ci lew na jumaam jooju ci lew na li koy jullee dafa wax ni néewa ngi nii boo xamante ni rek la ko yene wu mu ni néewa ngi nii boo xamante ni buñ ko sul bo xolé ke upp baat ca réew mu xol ñu xol garab ga gëna kawé mu yëg ci garab ga di yuuxu di nodd fu baatam yam kuñ fa sul rek aljana ga ci gi ñom yaat ma njaay ño ño nekkon ci auto ba ba ñuy indi serigne moor nenañ bi jappare ndam dafa commencé di taw bañ ak sukk moo tax sëñ Alioune Ba. waaw ñu ñaar seen relation jiitu na avant génn at nag. parce que doomam bu jigéen la ko mayoon moo jur ñun suñu way jur bu góor. moom maanaam moom moom dafa nekkoon fii ñoom Serigne Mor moom dafa bokkoon ci ñi Cheikh Seydi Hadji Malick mayoon weer ijaasaan leen ci benn bi jataay Serigne Mor ak sëñ Ba sëñ Alioune Ba nekkul woon fii Ndar. Hmm. nekkul woon fii. Ah, ah, ngumba sëñ Alioune Ba guy mbay la njëkk a wàcc ci tund bi parce que moom doomu Ndar. kon bi mu jógee ci Seydi Hadji Malick bi ko Seydi Hadji Malick la yebal Guy Marius Sagna la ko yebal set kilomètres de géew ba mu fa demee fekk sëñ moor nekkoon fa di fa jàngale alquran sëñ Alioune Ba xam-xam bu bari bi sëñ Mor comme moom alquran la jàngoon Seydi Hadji Malick ni sëñ sëñ Mor da ngay toog guy mbay ma yebal fa koo xam ne xam-xam la fay jàngale muy sëñ Alioune Ba biñ demee ba benn instant nag ne Seydi Hadji Malick di leen ñaar bu leen nekkandoo foofu sëñ Alioune ba comme doomu ndar la moom sëñ xaaj maa jox ko ndigal ñëwal fii ci tëli bi muy ngumba sëñ Mor nekk ca biir nga xam ne sëñ xaaj ci otoraay wala communication bu mu war a jàllale ci àll bi rek central bi moo sëñ Alioune ci tund wi yëpp nag bépp mu xaddam bu ne ci tund wi sëñ Alioune ba sëñ xaaj maa def ko central boo xam ne mooy mooy bu jotee ci affaire yi moo koy moo koy moo mooy partage mooy de partage mu ngoog kon nag gis nga kon bi sëñ Mor nekkee fële nag sëñ Alioune Ba jël doomam ñaareelu doomam bu jigéen may ko sëriñ Mor mu nekk ñeenteelu soxna ba am ci njaboot loolu moo indi ñi sant sëy ci biir ñi sant ba loolu moo indi lool waaye sëñ Alioune Ba mu nekk seen maam ba mu nekk seen maam ba waaye sëñ Alioune bi nga xamante ni si nag indi nañ saan sëñ Mor fii ci ci Ngumba manam mu mu def nak ben marsiya bo xamni da don netali wat li li xewon ci biri manam pour wax la lima la netali ni du waxi kesse wa du waxi kesse dafa wax ci xasidaam ba limi wax nan hal min min hal min mubakil ala xarnin khadim tasala awamir allah نحو الله قد رحل daan ne muhammad ibnu ma yaaram saara murtaxilan li rahmatillahi lama axsana al xoolal di dem ba mu yàgg mu ni xoola wa xaw mu ndar waa ndar xat bazalu fil mawti juhdahumu xatta tamassala fii ma baynana masala waa ndar def nañ lu ne ba indi néew bi tegal ma te booba néew kenn du ko déplacé xam nga lu tax nee na ataa bihi xaaju raw xaanul karimu alxaaju rawaan moo indi néew bi fii wa man yu yusayiuhu mi man naasuhu xamala ak ña nga xamante ni ñoo àndoon ak maam rawxaan mm. loolu ko gunge ah. dama la ku man sa yëf day nuroo xoola ne biñ koy indi mm. waxuma la parce que biñ nekkee na dañu amoon problème essence maam rawxaan am benn benn xaritu commerçant bu mu ko wax bu sant Camara kooku ne ko damay joxe essence bi yëpp booba 3000 francs boo ko amee daa paas daa jënd essence xaalis bu bari la maam maam Rawaan dani lu ci waay def àjjana nga koy fayoo commerçant dani ñoo dajale xaalis boo xam ne dafa bari ba boo demee ci sëñ Omar ba suñu maam ju baax ji yal na ko yàlla yokku fanam. amiin dafa daa wax naan xaalis booba sax mujj na sax njabootu sëñ Mor donn nañ ci. dañ leen ko mujj séddal. moo tax mu ni voilà wa jahazuhu jihazan kaana yu'jibuna waajal gi ñu waajal néew bi ba indi ko. affaire bi ñun sax dañoo mujj yëpp. xola bobu jundi bari na de alfan xaalis bi dal lañ pass bam dess jundi wala lu upp jundi alfan ñi ngi jégalu ah xola xam nga lu tax limla laa waqat sakharal saxaral rahmaanu xaalixuna xalbal wulaati wa kullu minhum khajila neena lu tax ba sax néew bi du ñëw parce que neena xolu gouverneur man lima la doon netali avant ma la koy liral xolu gouverneur la yàlla tagat deug la xolu gouverneur parce que gouverneur yi do ñu won nang ko déplacer ni lim laa wax kat rahman khaliquna khalb xalbal wulaati. wa kullu minhum khujla ñom ñep sax dañoo mujj am gàcce. parce que dañ ko dañu dañu accepter affaire bi ba pare daal di waa lii nu mën a nekk. mën a nekk ah. moo taxit muy nettali. lillaahi xiina. وصول الخرم خضرتنا تلقى الضاوية العظمى مع الفضلاء مي نتالي نك دي ديكري بي ني ديمي با اندي كور بي ماك ني نيكون تي توندي وي نيو جي نيو نيو تيوي ليغا خامتيني موم لا نديون واخ انترمان موم كون نك خينا لول استاذ تبارك الله جوندي لا وون رك سي واني نيوم تبارك الله نان كو مان سي مبير داي نورو تبارك الله جوندي لا وون بور واني نيوم سي سن بوب ني نيكي وون اها ريلاسيون يي امون سين بير واي اتيميت manam qabul li ñu xawma qabul lay wax xawma ijaba ak liko yàlla mayon ak liko yàlla mayon lépp mom sëñ Alioune Ba ak Mamor ak Mamor Awa Ndiouga ba nga xamanteni mom mom moom sëñ Ba lam doon wax ci Cheikh Seydi Hadji mari mo nek ci mom te mooy yuxfil xawaariqa wal karamata ifatan ويقيم دين الله كالخلفاء maanaam Seydi Hadj Malick wax naa la da leen a da leen a nandal kaas boo xamante ni ñoom doonu ñoon wane karaama mais buñ doon wane karaama relation boo ci jël diggante Seydi Alioune Ba ak kenn ci ñi mu daan àndal rek da ngay gis relation boo xamante ni bu sañ la boo xamante ni dafay tënku ci baatin mais amul dara lu dul yàlla dara yi àdduna jegew kon nag loolu ñu ngi ci kontaan macha allah Seydina Omar dëgg yàlla damay wax ni liñ fi développé rek wax dëgg yàlla doy na sëpp ci ci gàmm waaw buñ ci yemoon sax doy na sax mën nañ koo doyloo euh, ba noppi nag nga indi fi leeral boo xam ni képp koo xam ni xawoon nga am lënt ndax am na yoo xam ne xëy na niñ ko nit ñi duñ ko mën a laajte laajte yu bari yooyu waaye képp ku amoon lënt rek ci mbir mi ni sëy duggee ci biir ba ak nit ba duggee ci biir sëy boo déggee lii rek da ngay xam ne ndekete lii kat ñaar amu ñaar benn rek fi am mm. benn rek fi am benn institution moo fi am mm. tabaarakallaahu yàlla yàlla barkeel lool si barke yonente bi salaa taala yàlla guddal seen fan barkeel leen ndax eh, am njàngat bu rëy a moo ci ne mm. nangu gi nga xam ne moom la Serigne Aline Ba amoon ak xam-xam ba nam bari woon bi mu ñëw ci Cheikh ma Hadji Malick dafa fees dell waaye teewul mu am lu mu bëgg dem woo mat Cheikh Seydi Hadji gis ni maam moon awa njugo noonu la la jëflante ak Serigne Aline ñëw. Mhm. mu rafet te day gën a rafet incha allah. Mhm. ah mu mel si jërëjëf kontaan nañ euh, yéen ñi nga xamante ni lii yéen a ko taxawee. Ah, ah, ah. organisation bi ñoom maam Saliou maam Mali yéen ñëpp rek. njaboot bi waaw njaboot bi yëpp rek nga xam ni yéen a taxawee ni mm. ñun ñi ngi ciy kontaan di ci bëgg parce que ñun seen seen seen. seen kudd lañ rek dañoo wax ni wolof naan ku amul kudd ku am kudd du lakk waaye boo xamul noo koy téye da ngay lakk wala loo tibb mu tuuru te loolu daal yàlla nañ ci yàlla mu musal kon ñi ngi kontaan bu baax ñaan yàlla amin amin léegi loo tàggoo mbokk yi ngi kontaan bu baax euh, di gërëm waa géewul aar ak waa rajo géewul beek ak mboolem ñi taxawe lii ñi ñaan yàlla mu may ñu ñu gën koo fekke ay at yu bari euh, seen mbokkum taalibi la woon Omar Seye doon nap na bi rek di ñaan yàlla mu defal lu dégg ak topp lu ci jub ci ci ci ci ci yàlla la lu dëng ci ñun la doomu aadama ñu ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah Seydina Omar Seye kon ma ngi noonu tabaarakallah mooy parti bi nga xam ne moom lañ ko jagleeloon diggante Mame Mor Awa Diouga ak Seydina Alioune Ba tabaarakallah moom leer na nañ ko mbokk yi foofu la ñuy daanu ak moom di xaaraat beneen parti incha allah eh, ànd ak Gueoul Art TV di leen wax asalaamaaleykum ba si kanam incha allah topp leen rek tey incha allah lépp lu xew ci gàmm gi danañ ko déglu fii ci télé Gueoul Art TV asalaamaaleykum.